moo resinta résultat ya nga xamante si ne jamono ji rek mo commencé genn rek sa la nga xamante si ne moo di élection législative yi nga xam ne doot na ska amal nag si tey jii tombeek le 17 novembre si ay gox-goxaan yu bëri bëri si nag foofii sa bitim réew it naka fa noonet la fa résultat yi commencé di wadd waaye nag lan sa gisagun am na ñoo xam ne sax kersa moo leen ni daal di jàpp ndaxte nag lanu gisagun ki nga xam ne moom moo di la jamono ji rek dafa dafa mel ne dafa yorom ak karwaasam di labbali rek mel na ko yoru fasam ndaxte nag lanu gisagun mu tukki kooku sa sa ay résultat rek jamono ji Pastef daal ma ngay daal xel bu baax a baax na rek ne jamono ji daal la fas daal di tukki kooku si ay résultat rek moom seen xel daal di nay dal lool bu baax ndaxte nag ñam bokkal jongante ba si mel ne coalition sàmm sa kaddu wala sax takk wàllu ñooñee rek wala jàmm ak njëriñ ñooñee rek lan gis na sax ñoo say xaw a tene di feeñ feeñ tuuti ñeneen ñi sa gis rek amul kenn koo xamante ni si ne jamono ji ña ngi lay séen sa benn gox rek ngay daati am ay votant wala sax lu tollook nombre ba nga xam ne jamono ji rek Pastef ña ngi koy daati am mu doon mbir mu xamante ne si rek jamono ji Pastef wala patriote yi ñoom jàpp nañ na jamono ji rek mbir mi soo moytuwul si seen i loxo lay mujjee ndax li ngi gisagun jamono ji muy déroulé rek si internet bi ak résultat yi wadd daal dal na seen xel bu baax a baax na rek mbir mi rek daanaka cent pour cent soo moytuwulee rek las ka nar daati gaja ak si nga xamante ne si ne moo di seen leader boobee di Ousmane Sonko Pastef la patriote du Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne si ne def na campagne bu mucc ayib bu mel na nag patriote yi daan na si wuyu bu baax a baax mel na nag loola ñuy wax mbàcc mi daan nay commencé waaye nag la ñu nemmeekoogun daal gis ko si rek si ay gox-goxaan ba sa bitim réew daal li ñu gisagun daal mbàcc mi rek daate nay commencé ñu gis na nag Pastef la patriote du Sénégal rek moo labbaleegun la nga xamante ne si rek moo di karawat ba sa kanam kanam gisuñu kenn koo xamante ne si ne jamono ji rek jim nga ko jot wala si ay résultats li ko war dëggoon waaye nag ak lu si mën a daan leen toppale ba xam mbir mi rek fan lay daat yi mujjee ñaan li nga xamante ne si rek moo di sax yeneen candidat yi ak fu mbir mi mën a mujjee